wa waa Géejawaay salaamaaleykum wa quartier Cheikh Wade Sen xarit Serigne Matar Gueye ñoo indil seen première apparition ci Géejawaay info di leen indi xalé bi nga xamanteni mom moom wax Ngoy Madiaga Xalé bi nga xamanteni mo yëngal Géejawaay yëngal jamono borom yoola len ko Tay le 27 juillet mu am xew-xew bu mag bi nga xamanteni mom lay défé fi ci rond point mofadam. nga xamante ni tey ci ngoon la ma jaaga dina ñëw yoole ko fi ba ñëpp xam mooy loolu noonu ñun waa Guédiawaye info dina leen ko toppal manifestation bi du début à la fin ngeen mën a gis lépp mën a xam lépp te lépp lu xew ci seen gox Guédiawaye Guédiawaye info dina teew di leen ko wan kon gars yi topp leen ma ma jox leen li ci des. salaamaaleykum sëñ Balla. maaleykum salaam. Balla Guédiawaye info ñoo leen seet si woon gis ne. yéen a ngi ànd ak xale boo xamante ni mën na jamono ñu koy wax Mboye Madiaga ñu bëggoon xam ban initiative ngeen taxawal wala lan ngeen nar ci seen bisu tey bii nii ba tey ngeen ñëw indi def si ko fii. waaw dëgg la maa ngi siyaar gars yi di siyaar ñëpp di siyaar waa Sénégal di wax ne waaw Mboye Madiaga noonu la demee benn jeune talaa xale boo xamante ne ñun ñoo ciy jàpp waaw koo xamante ne fi ñu toll moo lëmbe géejawaay ah moo lëmbe géejawaay moo tax jël suñu lépp jox ko lii concert la le treize bi ko defoon boulevard Sine Fallou tey ñu ngi ko indi fii rond point Mor Fadam après bii di ñëw ñu ngi ko yóbbu Alba lañ koy wax après ñu ngi ko yóbbu Basé ba mujjee ko fee lu mu tuddati Malibu ah noonu la demee bëgg nañ gaa jàpp ci tey lay commencé à waaw 18 rek gaa yi yëngal jën temps la boo xamante rek waaw mu ngi innové daal mu ngi innové mu ngi yëngal te yàlla waaw mooy loolu

waaw loolu mooy affaire bi daal noonu lañu ko bëggee bëggaat jàpp ci rek ku lu koy autorité ñëw jàpp ci te xam ne kii suñu xarit la suñu suñu lépp la mooy affaire bi daal waaw. ma dégg seen benn woy boo xamante ni moom la xale yi fooyee naan yoole ko la mooy yoole ko. waaw looloo xew fii kom loo réeral da nga kaa war a yoole pour mu feeñ ku bëggul làqu da koy yoole pour mu génn moo tax booy ma jaa génnee yoole yoole daa xew lu dul yoole bokkuñ ci ñun ñooy xale yoole maan waaye yoole maan baa ngi ñun ragaluñ loolu ah kon ragaloon na loolu moo tax saa su ne ngeen koy yoolee ah mais sama waay kontaan naa ci yow ok merci beaucoup ànd ak euh, staffu ma Madiaga xale bi nga xamante ni moo yëngal géejawaay moo yëngal jamono nee na nag du fi yem Sénégal la bëgg a génn sur le plan international ay xaritam nag ñoo fi nekk ñoom la ñuy seet ba léegi sëñ bi yow noo tudd. waaw man la Pape Bourguewal. Pape Bourguewal na nga maa ngi sant yàlla bu baax a baax. pour géwél ñu gis sa taxawaay boobu ba léegi ah suba ba léegi yaa ngi fi ñu bëggoon xam lan moo waral loolu. waaw d'abord maa ngi nuyu groupe whatsapp bi ndax groupe whatsapp bi man maay seen président di nuyu képp kuy bëggee mbooy di ziar ñëpp di leen wax na nag mbooy moo wootee gars yi na ñëpp ñëw ñu jàpp si ndax mbooy suñ mbooy la ñun ñoo ko moom te dañoo bëgg gars yi ñëw jàpp si ñu jàppale ko fi ñuy dégg gaa yi ñu dégg ko fi waaw ndax gaa yi ñu ngi préparé yi yi ñu ngi bii nii ak yeneen ak yeneen ñu ngi koy préparé waat waaw waaw Guédiawaye info ñëw di leen couvrir manifestation bi loolu la ñuy wax waa Guédiawaye info ci déplacement bi ñu def pour ñëw ànd ko ak yéen. waaw ñu dara lu dul kontaan si moom Guédiawaye info ñu yàlla mi am seen fay yàlla leen yàlla fay waaw ndax li ngeen def ne bu baax si seen talent yi ndax tey ku ne bëgg naa jël mbooy yéen ngeen ñëw jàpp si pour wane ñu ko tamit dañuy defuñu lu dul kontaan si yéen tamit waaw. waaw info yéen la fi nekkal xale yoole yoole waaw yoole yoole moom yoole yoole ñooy borom ragaluñ ko nag ñooy boroom te fu waay toll ni dégg yoole yoole tey jii si kàttanu suñ borom. kon yoole yoole leen ko ragaluñ ko Guédiawaye info ak ma Madiaga ce soir ici au rond-point Morfadam kon dañ koy yoole gars yi kon ngoon fii dañ koy yoole. Guédiawaye info jóge rond-point Morfadam ñëw fii ñuy wax masa bu bees ko ñu ay si gune tey ku ñuy seet si mboy ma Madiaga gars yi seet si leen ma xool leen ma topp ma ma ànd ak moom Guédiawaye info lépp li ngeen xamante ni moo leen di réer seen dëkk moom moo leen koy wan daa mel fii mooy kër mooy Mboye Ndiaga de e eh, booy booy Mboye fa la dëkk fii ah Bécaye topp ma ñu xooli mbooy ma Ndiaga mu mel ni kër mbooy mooy nii kon mbooy lañuy ñuy seeti ISAC planétaire bi nga xamante ni moo yëngal géejawaay toj àdduna kon ñu ne fële ci kanam kër mbooy day mel ni dañ kaa xamul bekaay ah ah bekaay xale bi yëngal jamono lañuy ñuy seeti de mbooy ma jaaga asalaamaaleykum waa mais mbooy waa mbooy yow mbooy yow jafe ngaa gis de salaamaaleykum yaay boy, ni ngeen def mbooy ñoo ngi jige borom point mo fa dem fekk nañ gaay tek bagage yi di wajjal guddigi ah gisuñu la fa ñu ne dañu ñew sa kër setti la lu waral loolu ko tok fi ba bi ah ma ngi fi ma ngi fi ak sama yaay ak sama kër di préparer rek xam nga ah, boy bis dafa yoon la nga waajee sa kër te ñun lu ñu am rek suñu fi moo ñu ko may dal moo tax ñu nekk xaar mais fa lañ jëm lay kanam nak ndeysaan dëgg la Géejawaay info ñëw seet si la Géejawaay info nekk télévision bi nga xamante ni moo ngi ci internet bi bëgg di def li nga xamante ni bépp jeune talent boo xamante yaa ngi Géejawaay ñu fësal la wane la ñu lay dégg ci àddina di la dégg ci soirée yi di la dégg ci ngénte yi di la dégg ci mariage yi mbooy macha allah baat bi neex lool nga mën a woy lool am woy boo xamante ni moo jaaxal àddina ñu la koy laaj nag yoole waaw li yoole li tax nga jékki-jékki rek na yoole <laughs> na yoole benn affaire loon boo xam ni maanaam gars yi di ko doon utiliser mooy yéen a ma gën a xam daal géejawaay la nekk waaw mais man ma jël ko ni pourquoi man du ma ko jël xam nga parce que yoole mooy loo xam ne dafa war a siiw yoole mooy loo xam ni buñ ko jëlee bëgg mu feeñ ñu wax ko yoole mooy xam ni mooy loo xam ni tey jii nii lu waay bëgg mu jaay mu jar pour nit ñi xam ko pour jënd si ko mooy ñu yoole ko waaw mais moo tax ma wax yoole yoole yoole yoole nag mooy sama affaire boo xam te nii moom la àdduna bépp fi dañ ma ko doon teere nag ñëpp gaa wax doon xalaat day man maay sàcculoo booy yoole bu ma ko woy mariage tas mais léegi dafa naa ñëpp a koy taas di ko di ko di ko woy daal waaw. kon yoole yoole muy mel ni ñëw nañ ci kër gi fekk nañ fi yaay boy muy mel ni tey nga tuddee ko Amazon bu béy di sëy kon dafay mel ni guddi googu noonu tey dinañ ko yoole ba mat mais balaa may waxaat ci loolu damay ñëw laaj yaay boy tuuti ñu saat fi jóge daal dellu nag géej waaye dafa day mel ni yow fa nga jëmoon nii. Ah, kon taxul ma yaay boy tuuti laaj ko tuuti ñu soog a ñoo dem. waaye li yow cosaan li ndax buñ la fekkee nii daf ñuy won ni rek yaa ngi sa wetu te sa dom wax na ko léegi ci ay Da dafay fekk ne mbir boo koy def saa su ne balaa di nga ñëw nekk ak waajur yi leen tal leen loxo yu ñaanal la leen nuyu ci seen ak seen sant te di leen xamal mi yàllaa dogal li rek ak cosaan dafa dëgër ndax man am day waaye bàyyi moom lislaam la ma sa bëgg diine la ma sa bëgg kaamil la ma sa bëgg nitu alxuraan la woon lii limaan la woon it gi Cheikh Wade ko ma waaye tey ñëpp xam na ko góor gi Matar Mbaye alxuraan rek la bëgg nag doonoo dafa dar ci borom ndax man mii ku ma doon way la doon ay bàjjanam dañuy woy ku ne dégg na xaan bay ma jàgg seeni i bàyyi bokk baay kon kooku dafa doon woy waaye bu du woon loolu du woy waaye nag booy maa ngi koy sant nag xale la waye nak bari na bari na fiñu ko mak te ñewuma leen ndax wax deug yalla tek na ma fo xamne ne am nañu ma magi doom sax ci seen doom yóbbu fa ñoom ndax utuma dara dimuma fenn utiwuma leen ma ngi sant yalla bu baax te man na maa man na ma sonu ndax boy bu juddo yagul xañ na am nay mag sax bu magam yoyu bu dundan sax du sonne ni du ma sonne nii waaye nag dogal ay magam dunduñu mu juddu nak mu xame nak di jàmbaar ma ko sant bu baax ndax amul lenn loo xam ne jot na ko ci indiw ko ci kër gi am na lenn loo xam ne yor na ko mu ump ma man mi yaayam di sant di ñaan sunu borom nag yàlla na yi fu mu gën a dëgër fu mu bëgg a yegg yàlla na fa yegg barke sayidina Muhammad li ma ko waxaan itam nag mi ngi ci du tox du naan bëggul dërëmu kenn xëy na nag gone mënut ñàkk ngone jànq bëgg naa la ma ni bëgg naa loolu mënut ñàkk waaye du tox du naan bëgg sox dërëmu sox soxlawu dërëmu kenn loolu maa ngi ko sant yàlla xëy na du sama jëf jëfi yàlla la maa ngi sant sunu borom baax ndax ngi fi ne ginnaw lu dul yàlla du yont bi ñëruma billahi wala lu dul yàlla du yont bi ñëruma waye nak ma ngi sant loolu ndax bu ko non def tay di ci boole leen dana ma métti waaye nag bëliwu ci leen lo xamni ne neexul yàlla ma ayant bi asalaamaaleykum jërëjëf yaay boy kaddu yu rafet na te kaddu yi mu wax boko xolé ci mboy dang koy gisat mboy xalé bu civilisé la xalé bu set la xalé bu propre la te limi wax xamna ko ci mboy bu baaxa baaxa baax du tux du nan deug la mu melni metti mi bo ci nekké gaay fofu rek la lay xalaté waaye yàlla dimbali na ko ba loolu yëpp doon na li nga xam ne moo ko tëb mbooy waaw xanaa dañuy daal di ñëw daal di daal di dem rek sa waa koñ a ngi nit ñu ñëw ñëpp génn nga xam ne kon mbooy ñëpp ko bëgg waaw mbooy day mbooyu géejawaay yal na la yàlla lafal cat xanaa kon ñu ànd xool ko ngéwél a neex xoolal def na bitéelu siom lii ngéwél xam nga ngéwél dafa naturel bégaay géwél moo naturel maanaam ñoom bëgguñu sax bett leen ndax ñoom noo leen fekkee bëgg nañ li tax géwél neex ma ñoom dañoo fier ay noobu lañ nag xolal noble googu mo nek fi sama boy booy mbooy kon mbooy nañ dem rond-point moo fa dem ñu xol li fa ne Bécaye acca ñëw ci Guédiawaye info dem marché bu bess jëli mbooy ñu ñëw fii ci manifestation bi nga gis na mbooy dafa ñëw recommencer duggu ci bagage yi commencé laal ma ne ko noo kaay kaay toog fii ñu wax tuuti mbooy bi nga ñëwee xol rond-point Mor Fadam nga gis sa gaay yi niñ ci nekk sa xel ci lan la nekk waaw sant rek sant kontaan gën a kontaan rek xam ni rêve rek moom solo quoi parce que ñun Cheikh Wade lañ juddoo fii lañu yaroo école du sud bi suñu wet lañ jàngee xam nga li ñu jot a jàng kon nag tey bu yàlla dogalee ñu nekkoon ay ñu nekk ay xale di fi teg tey pëjam di woote concert géejawaay gépp nañu fekk si ak Pikine ak Parcelles ak yëmbal kon dañuy kontaan suñu fiyaatalee doon mooy suñu xool sedd gars yi nag kenn mu seen fay daal waaw muy sama staff mooy ñi nga xamante ne nii tey ñooy DJ bi nga xam lay àndal Maguette Mega ak safam xam nga groupe bam waaw ak kër Mboy ma jaaga 100 pour cent ma jaaga kër yaay mbooy ma jaaga kontaan naa si ñëpp waa Cheikh Wade moom dama leen beral cant daal ñoom ñoom kontaan si ñoom wax dëgg yàlla ok. Guédiawaye info di la wax ne sa manifestation booy defati nga yëgal ko yëgaloo ko Guédiawaye info dina ñëw toog couvrir ko parce que nag amuñu lu dul Guédiawaye te yéen lañ am ñu nit yéen lañ am. ñoo leen war a wane yéen jëf pour ñu wone te donc ñoo ngi leen di ñaan di leen talal loxo di leen wax ne sa su ne foo leen ne rek bo la woy di dinañ ñew genn leen wone leen parce que tamit nak da ngeen wara siwu te da ngeen siwu te da ngeen xew. waaw ay info mom ñoy yolo man yu mag yi ay info ñooy man yu mag yi parce que man comme li nga wax sank suñu kër man moy ki wara wone wane man moy ki bëgg dara feñ mo xoo kon euh, géejawaay info kon mooy yola man bu mag bi waaw yoole yoole man mag bi daal mooy info kon géejawaay info mooy yoole man bu mag bi hmm. géejawaay info ngoon dina fi yoole ànd ak mbooy ma kon moy ba ngoon ci kanam ñu ñëw jël si li nga xamante ni moo fi des ñu ànd ak yéen jaajëf ñu ngi ni taxaw ak grand frère Mboye majaga, mu nekk ki nga xamante ni lépp lu Madiaga di dugg dina ko ci laaj xelam ak xalaatam mu sonn ci doon jàmbaar joo xamante ni fii ci géejawaay kenn dootul présenté ngañ ngañ ak ASC jamono 2 ngañ ak ngéwél gi ngañ ak waa rond-point moo fadam ngañ géejawaay info ñëwoon set si leen di couvrir seen manifestation ñu gis ni ñu ci taxawee xool ci suba ba léegi mënoo sol yére mënoo def dara ñu la doon laaj sa taxawaay lan la ci waaw jërëjëf Matar ñu lay fay bu baax a baax di bégg ci affaire bi nga def yow ak Bécaye di leen sant bu baax a baax ci taxaw bi ngeen taxaw géejawaay ci taxaw bu ngeen taxaw doomu géejawaay xam ci liggéey bi ngeen liggéey ci jeune talent géejawaay parce que tamit yaakaar naa lii lu ñuy rafetu la lu ñuy kontaan la suñu fierté la jeune talent nekk fii géejawaay ngeen koy jàppale di ko conseiller di ko couvrir di ko wane loolu vraiment amuñ ci seen fay ngeen di sant di leen gërëm mbooy nekk na koo xamante nii bon lu ko waaye def rek mën nga ko defal parce que rakk la joo xamante ni naqariw la waxal déggal na ma su ma nee ko bàyyil mu bàyyi su ma nee ko defal mu def du def loo xamante ni aussi yëguma ko kon nekk na koo xamante ni lu mu nekk war naa ci soonu war naa ci mën a rey sama bopp war naa ci mën a jaayante ba mu xam ne tamit cër bi ma jox delloo naa ko parce que àdduna cër la rek ah bu fekkoon tamit dafa nekk ci leneen loo xamante ni jox ma ci sama cër du ma ko ci fekk am naa boobu fulan ah par exemple atelier laa yor mën naa fa dem liggéey toog jàpp sama ñaambur mais nekk na koo xamante ni bu xewlee mu tëj sama place parce que fi mu ma teg la ak cër bi ma jox loolu moo ko waral loolu la moo tax may doxee nii ma taar li ma def nit boo xamul ni nga koy def nam la def moo tax cër la yaa ko wax kon ngeen na ngoon yoole da ko indi fii ci rond-point Mofadam kon ngoon noo la nar a yoolee rond-point Mofadam waaw ngoon moom rond-point Mofadam moom yaakaar naa ni yoole bi dina yoole wu torop torop torop torop torop parce que dafa am lu rafet loo xamante ni dafa am fii ñu war a ngénte tali bi tuddee ko suñu maam Amath Tall nga xam ne li mu def ci quartier bi li mu def ci gox bi kontaan ci lool ñepp am ci fierté moo tax dañ ko waroon def euh terrain parce que bu Guédiawaye ma ne gars pourquoi pas rond-point Mor pourquoi pas ñu wane waale suñu mbégte wane waale suñu bop wane waale suñu bëgg maam amataal ak jëf jim jëf ci koñ bi gaay na loolu moo lu rafet la ci lañ déplacer wo ñëw fi di ñaan tour bi mu nekk lo xamanteni ni na law yàlla na jig Guédiawaye yàlla na jig Cheikh wad ngénte li ñu ngénte télé bi yàlla na doon li gëna mag ci gox bi loolu dal doon na suñu mbégte doon na mbégte bu rëy rëy rëy bo xamanteni tam il faut ñu wax ko parce que suñu fierté la télé bi ñu tuddee ma amatal ñu ñëw ci woné wanewaale ci suñu bop woné wanewaal feeñalaale suñu mbégte motax ñu déplacer wa terrain basket indi fi affaire bi. merci Ngagne Guédiawaye info la voix des sans voix mo fi teewaat tay di leen waxat di leen wonat lepp lu réeroon ñoo koy lepp lu way bëgg gis fi nga koy gisee Guédiawaye info ci kaw ci kanam ñoo ngi ñëw.